vraiment des centres. Saint-Louis dans toute l'histoire cette ville tricentenaire nous organisons le premier meeting international dans d'athlétisme 14 nationalités Nous sommes Congo Mauritanie ah, euh, je crois que Madagascar ça Togo donc at 130 athlètes loolu am na solo tey jii ay réalisation yu am solo am na fi ci 100 mètres ci 400 mètres buñ ko mënee nag c'est parce que sunu courage la rek man ak Muniru ndax ñoo ko co-organisé

qui va rentrer dans l'histoire de l'athlétisme saint Lydien. donc nous allons le recteur de l'université sama xarit tout le matériel bi remercier le commandant Bass commissariat j'ai remercier le commandant des sapeurs pompiers di remercier le colonel commandant de la gendarmerie gis ngeen matériel gendarmerie fi nek yépp ñoo ko jox di remercier la Croix-Rouge di remercier vraiment population de Saint-Louis ndax bu fekkoon ñun rek la du demee nii mais nit ñi dañu wuy si donc ñoo ngi leen di sant bu baax a baax waaw organisation bi nag saf na sap sàpp la def ndax ñu nu war a jàppale e jàppale wun waaw ñu nu war a jàppale dëgg-dëgg jox nu koppar gëm projet bi joxu na ko loolu mooy dëgg koppar bi yëpp entre association ñoom muniru la at man mii at ligue athlétisme ñoo ko ci def donc kenet kopparu kenet dugg ci lu tolloog douze millions la donc ñu ciy sant parce que nag dañ ko def ndax dañ ko gëm mu nekk projet bu nu gëm moo tax ñu woo nag autorité yu bees yi defoon naan sax daan fi teew ndax bu nee meeting international quatorze national yi fi nekk ministre bu bees war na fi teew waaye kenn ñëwul waaye loolu du ñu découragé ndax dañu bëgg loolu. ville saint ah ville Saint-Louis moom kenn waxul sax seen wax ñooñu kontaane woon leen ah, xaaralu leen woon ndax yàgg na leen di bind waaye répondre nu mais daal lii résultat bu rëy la et yaakaar naa ni tey jii comme ni ñuy wax rek li nga xam ne yàlla mooy tax muy dem e teg si sa loxo rek mm. waaw boo ci bañee teg sa loxo tam day dem mm. incha rabbi